xale yow doxe nga naaj de waaw waaw alaaji suluxu yow kañ nga jóge magal sax yow waaye ñëw naa barki démb xaali ñaanal naa la de ñaanal naa Sénégal yépp ñu teewe koy at yu bari amin waay alaaji suluxu gune gi sikk waykat bi sama koñ la ñëw de dégg naa tantam la sët de kuy kooku xaali way yow xamoo kumba gaw la yow ah, kumba gaw la sekk la diva de la musique sénégalaise ngay wax Xaali waaw kay moom la dee ah bon mais Xaali kon yow ngoon foog ma dox si la waaw waaw ñëwal ñu dem labat ko waay Xaali doo nag dubbe mu ngi si waañ bi yow bul ma sacrifier yow tamit xoolal xaaral ma 18 heures des sama sañse ñu ñu dem seeti ko sa jalabe bu zone bi nag nga dimbali ma rek changé ko Xaali bëgg nga ko trop sax foo koy fóotee moom yàlla bu ma fa li ci ndara génn ci tilim xaali xaral ma jóg préparé waay ut yére bu may sol ngoon mais xaali sañse nga de sa lacoste baax na de waa xool ma noo ma gisee <laughs> sañse wu ma rek yem si de dama sañse ba matt géej gi nga naan ma lan mais ala ju bu ñu demee na nga ma wax ak gawlo de waa yow xaali bi lu ko dal yow président dina fi nekk député di wax eh xaali n'exagère pas ah yow tamit gis nga bu ñu demee ba ne cur dugg si kër gi suñu ñaari bëri su dajee maa kumba gawlo sekk nga gis loo musul gis xaali coup de lay doon elle va tomber amoureuse xaal yi yow tamit ku dugg mag mën a yëngal dëxin <laughs> xaal yi Kumba Gawlo elle va m'aimer parce que man dama coofe rofe doore bëre je suis le coof l'américain de Dakar ñu dem xaal doxalal Kumba Gawlo Seck tey lay mu mësul gis